pour la lutte contre les inondations présentement nii je peux vous dire que Thiaroye fait commune des parce que j'ai l'habitude de dire inondation c'est pas une compétence mhm. mais le Sénégalais xamul la assainissement assainissement bokkul ci compétence transférée mhm. mais Sénégalais bi xamul la ah mooy compétence transférée mhm. c'est-à-dire que en tant que maire xam nga maire du dafa tëli mais boo defee say pexe pexe bañ dafa tëli bi yow la ñu félicité ça veut dire que tamit bu amul tamit yow naan yaa ko defaru moo tax ma ni sénégalais xamul lan mooy compétence transférée li mu xam mooy bëgg-bëggam te effectivement maire dañoo waroo revoir les compétences transférées mm. parce que man depuis que je suis maire je parle si télé on a dépensé 150 millions sur fonds propres pour prendre en, en, en pour, pour, pour, pour investir ko dans l'assainissement boo ko defee assainissement le payeur mën na ko bañ a fay mm. da koy tuddee neneen parce que lépp lu bokkul boo gisee compétence transférée lépp lu bokkul compétence transférée boo ñëwee moom mi fay mën na ne lii du sa compétence mm-hmm. Mm-hmm. donc da koy tuddee ak yeneen astuce pour defar assainissement mm-hmm. donc loolu nag vraiment pour ñun état bi le régime qui était là amoon nañu un programme décennal de lutte contre les c'est vrai que inondation ki assainissement dafa bokk lu ñuy wax euh, investissement ingrat c'est-à-dire c'est des milliards yi ngay suur mun ngaa suul ay milliards nit romb na defoo fi dara. Hmm. nga yëkkati benn immeuble nit romb immeuble cent millions nit taxaw di tàccu. mais jafe-jafe population yi de la banlieue surtout commune Thiaroye Gare bokk na li nga xam ne tey inondation de ses bokk. Hmm. donc am na yi nga xam ne ay programme yoo xam ni daf ñoo fleurir rek mais l' objectif ñu ngi siy góorgóorlu en interne mais bëgg nañ tamit état gën see jàpp. gën see jàpp surtout que péage bi boo rombee péage bi ñu ngi yokk péage bi. Mhm. je pense que ci côté axe Thiaroye bi juste boo ko rombee tuuti fa lañ ko commencé. effectivement mais est-ce que foofu aussi jël nañ en compte le fait que euh, côté côté côté assainissement beeg yooyu côté surtout. c'est ça c'est ça c'est ça les difficultés majeures. c'est-à-dire ñu yokk foofu. il est interdit de percer les murs du terre et du péage. alors yow mu nekk aux environnements nga dëkk bu jotee population bi dootuñu xool lan dañ koy bëtt rek dañ koy bëtt parce que mënu maa nekk si ndox mi ndox mi. Mm-hmm. jàkkaarloo assainissement benn benn réseau à cinquante mètres. ñu ñu lay gën ay arrêté naan la sañoo amoo droit parce que. nii nii nii mën nga ko wax politisation dëgg la mais bu demee ba taa mu gis ni benn solution mooy am mooy percé. percé mooy am donc pour comme ni nga wax ni c'est important dans ce genre de projet. c'est mm. le terre c'est des milliards c'est des milliards. Mm. donc chaque dans chaque zone traversée. Mm. war nañ mën a jël en charge les les populations environnantes. ndox bi day defar nii day defar parce que li mais ñi fa des ñooy ñooy les plus grands impactés. Mm-hmm. parce que yow bu fa dëkk ñu toj sa dispensaire toj sa pharmacie. toutes les infrastructures yoo xam ni ñoo nekk autour ñu toj ko. Mm-hmm. yow ñu jox la sa xaalis nga dem jënd feneen mais ki fa dëkk. yëpp foofu la ñu. moom mooy impact bi. donc on est ñu leen considéré comme des impacts mais j'ai l'habitude de dire les véritables impacts du terre. mais ñi nga xam ne ñoom ñoo fa des. ok donc ñooñu c'est important vraiment que l'APIX que l'AGEROUP. Mhm. bu ñu def ce genre de travaux ñu considérer ces populations comme étant intégrant du projet.